leen massawu ci lii ñu dund ci bisu tey maa ngi jéggulu ci waxtu wu guddee wii ñu leen woo ngir waxtaan ak yéen ngir jébbal leen loo xamante ni dafa bàyyeekoo ci gouvernement bi muy message bu ñu bëgg a partager ak yéen maa ngi toog ak sama natango Abdou Karim Fofana bi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall dénk lu jëm ci wàllu jaay ak jënd toog ak tamit Moussa Bokar Thiam mi yor wàllu communication dañuy tàmbali suñu kàddu di wax ni deux mille vingt et ak léegi suñu réew ñu bokk ko ñun ñëpp muy Sénégal gis nañ ni am na jote bu dox diggante benn sénégalaise bu clamé ci yoon benn leaderu parti wax ni dafa yegg ci moom ci benn salon massage waaye ginnaaw suñu réew réewu yoon la du nit ñi ñooy ame seen xalaat war a wax ni kii moo def liñ koy toppee wala déet yoon moo war a doxal seetal seet leeral ndax loolu am na wala amul ci suba tey tribunal àdduna ci loolu wax ni lañ doon toppee kooku di chefu parti boobu di Pastef du loolu lañ ko war a daane waaye liñ ko war a daane mooy yàq xale bu jigéen bi yàq ndawam waaye tamit am ay daan yoo xamante ni dinañ ko ko daan ci loolu nga xamante ni mooy ni ko tribunal jàppee ni noonu la ko war retenir waate ci tubaab di ko wax disqualification loolu nag bi mu amee ñu gis ni indi na fit na goo xamante ni juddu na ci dakaar ak ci Ziguinchor am ñu ci yàqule muy état muy ay doomu aadama yoo xamante ni seen yoon nekkul ca loola ñu leen di massawu bu baax waaye di massawu bépp famille bu ci ñàkk sa doom di la jaale ci turu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak ci turu réew mi yépp gis nañ tey ci ndakaaru am ay nit yu jub di attaqué lii di TER bi ak berte nga xam ni lu mucc ayib la ci wàllu transport suñu réew am ko ci njàppandal ak ci gis-gisu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall muy xeetu dem ak dikk boo xam ni ci réewu tugal yi lañ ko daan gis muy yombal dem bi ak dikk bi di woyofal doomu aadama yi seen dem ak seen dikk ci biir ndakaaru waaye ñu gis ay nit jug attaqué ko BRT bi nga xamante ni noppeegul te liy sabab bi mooy gën a rafetal gën a yombal waaye gën a neexal dem beeg dikk bi ci biir ndakaaru tamit ñu gis ay nit jug di ko attaqué kon loolu du mooy li nga xamante ni ni la ñuy manifester wala ni lañuy ñuy joxe suñu xalaat bu loolu jàllee may leeral ni am na leneen loo xamante ni tamit seetlu nañ ko ci ngoon te loolu li tax état bi def ko mooy ku ne xam na ni code de la presse dafa am lu mu tënk ci liy wareef ak liy yelleefu képp kuy liggéey ci tas xibaar waaye taskatu xabaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen rafetaayu liggéey ak ci seen taxawaay waaye ci seen jàppandal ci ni démocratie di gënee jëm kanam waaye dafa am loo xamante ni tamit dafa tegu ci loosu kuy tas xabaar waaye tamit képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo xeetu xarala yu bees yi ñu koy wax réseaux sociaux fan yële ci ginnaaw waxoon naa ko muy dafa am ay doomu aadama moo xam ñoo ngi dëkk ci biir réew mi moo xam ña nga nekk ci bitim réew waaye dañuy jóg ngir di noonale doomu aadama yi dëkk Sénégal di soosale ay xol waaye di wax ay wax yoo xamante ni ku leen dégg wala ku leen déglu di nga gaañ sa morom wala di nga lor sa moroom moo xam ci yaramam la moo xam ci alalam la loolu nag du li nga xamante ni moom moo tax euh, réseaux sociaux wala communication jóg ñuy massawu ñi faatule wax naa ko léegi dinaa ko baamuwaat ñuy massawu ñi faatule di leen waxaat une fois encore si gi leen ndigale état bi nag dafa am warugar warugaram jëmale ko ci ñi ñu bokkal réew mi moo xam ay sénégalais lañ moo xam tamit ñu fi nekk la di dund ak ñun te du ñu ay sénégalais mooy am sécurité maanaam rôlu état bi li ci jiitu warugaru état bi li ci jiitu mooy fexe ba sénégalais bu nekk ci biir réew mi am sécurité waaye ku dul sénégalais tamit nekk ci biir réew mi nga am sa sécurité moo tax dinañ jël matuwaay te jël nañ ko depuis ci suba waaye dinañ ko wéyal dinañ ko gën a saxal dinañ ko gën a renforcer ba sécurité bi nga xamante ni ku nekk am na ci droit ci état bi ñu matal la ko ñu jox la ko ba mu mat sëkk dafa am foofu loo xamante ni bëgg naa ko fi leeral ay nit dañuy jote wala ay nit bañu bokk xalaat waaye koo xam ni yoonam nekku ci amaana dafa feebar war a dem hôpital amaana dafa war a dem marché liggéey yi amaana dafa war a dem bérébu liggéeyukaayam moo xam menuisier la moo xam mécanicien la moo xam tôlier la moo xam tailleur la waaye xew-xew yu mel nii bu amee dina ko indil gàllankoor boo xam ne moom yoonam nekku ci ba mu indil ko safaan boo xamante ni du mën a jëfandikoo liggéeyam ni mu waree daan dooleem di dundee ñaqam loolu nag ñu ngi leen ci massaw bu baax a baax a baax ci turu son excellence monsieur le président de la république Macky di leen wax ni lépp lu ci war ci taxawaay lépp lu ci war ci gunge leen ànd ak yéen ba seen àq ak seen yelleef kenn bañ ko salfaañee réew mi nekk ci jàmm incha allahu rabbi nañ ko wéyale di ko continuer di ànd ak yéen loolu mooy li nga xamante ni mooy kàddu yi ma amoon man ak sama naataango yii kii fare ndejoor di Abdou Karim Fofana kii fare càmmoñ di Moussa Bokar Thiam ngir euh, partager ko ak waa réew mi yëpp di wax nag ngir daaneel sama kàddu nit ñi ngi woon ñëpp ci dal ñi ngi woo ñëpp ñu ànd ak sago ndax li ko waral mooy Sénégal bon bopp la kenn mënu ko xar ñaar te dañu am tradition am aada démocratie te aada démocratie boobu moo ñu jural su ñu amee lu ñu wuutalee dañuy dem ci banqaas yi nga xamante ni moo ñu mën a àtte mu leeral ko loolu moo doxoon diggante benn sénégalaise bu am ay droit ak beneen sénégalais tamit bu am ay droit wasalaamualeykum wa rahmatullah